télévision Futurs Médias mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di rafetlu bu baax seen ànd ak ñun fas yéene ànd ak yéen ci xibaaru digg ba gi ci TFM li ci gën a fës bokk na ci mbir yi euh, Boubacar Seye njiital euh, Horizon Sans Frontières nee nañu ak wér gu dafa doy waar jamono ji ba ma nga ca pavillon spécial loolee ki ko xamle moo di Souleymane Diallo mi amee euh, doom leneen ci wàllu xibaar bokk na ci kër yi ñu daaneloon ca mbuur quatre extension am na leneen lu ca yees li yees moom mbir aadama yoo xamante ne ji kon dañu leen a teg loxo garde à vue ña nga kon ca loxo yoon liñ leen di toppee bokk na daal ci jaay ay terrain yoo xam ne kon tegewul ci yoon boole ceekit ak njublan goo xam ne nemmeeku nañu ko lii moo tax kon ñu daal leen di tey des na ci dikk ci xibaaru digg bëccëg gi ak i leeral jóge ci Cheikh Anta tolluwaayu coronavirus bi ci Sénégal bilan bi wax na tey ñeenti doomi aadama yu ñàkk seen bakkan wax na it lu toll ci ñetti téeméeri doomi aadama ak fukk ak juróom-ñett yeneen yu yees yu amee jàngoroy coronavirus gi. daañu waxtaane ci xibaaru digg bëccëg gi nappkat yi ca diwaanu Guet Ndar am lu leen metti jamono ji sabab li mooy nee nañu dafa ami mool yu nekk ci capital Sénégal di Ndakaaru yoo xam ne dañuy indi sabotage ak di yàq seenub liggéey loole nag li ñu bëgg mooy na ci kilifa réew mi wax nu mu gën a gaawee lu ko mooy mën naa jur fitna ci réewum Sénégal mbokki lii moo gën a fës ci xibaaru digg ba ca ngeen taaxirlu ñu faram fàcceel leen ko. Boubacar Seye njiital ONG Horizon Sans Frontières nee nañu ak wér gu demeetul noonu ca kaso ba mu nekk ba tax na yóbbu nañ ko pavillon spécial xibaar la boo xam ne ñu ngi ko nangoo ci kii di Bouba euh, Souleymane Diallo mi amee kàddoom fàttali ne Boubacar Seye dañu ko tëyee ci kaso bi jamono ji ci mandat dépôt la nekk li tax bokku na daal ci nee nañu dafa yëkkati ay kàddu yu wérul jëm ci wax joo xam ne da ko waxoon mu ñeel financement bopp Union européenne baaxee woon na ko réewum Sénégal ngir ñu xeex ci ak moom ba tax ñu téye ko ci ni ñu ko waxee moom Boubacar Seye maa nga ca pavillon spécial bu hôpital Aristide Le Dantec ndax yaram wu sutante des na ci dellu siwaat ak yéen ci yeneen jotaayu xibaar waxtaane leneen mu di kër ya ñu daaneeloon ca Mbour quatre extension ca diwaanu Kees am na lu ca yees la ca yees moo di ñeenti doomi aadama yoo xamante ne ji teg nañu leen loxo ña nga ca garde à vue lañ leen di toppee bokk na ci mbiru escroquerie ak it jaayi pàkkate lu teguwul ci yoon loole la di toppee leerali Cheikh Anta Diop Sey coowal suuf li amoon ci mbuurkaat jamono yi nag am na lu ci lëndëmoon ci xelu nit ñi waaye nag mel na ni am na lu ci leerandi ndaxte ñeenti nit de teg nañ leen loxo ñoom sax dañ leen tuumaal ne ñoom ñoo doon dagg terrain yi di ko jaay ñu leen di toppit escroquerie ak jaay terrain bu ñu tegul ci yoon mbir mi nag laal koo xamante ni ab policier la woon ànd ci ak benn géomètre ak ñaari courtier ñoom sax dañoo lëkkaloo woon ak ay boromi tool nekk ci mbuurkaat doon dagg terrain di ko jaay nee nañ parcelle bu nekk ñi ko doon jaayee cinq cent mille francs yi nee nañ koppar yi ñu encaissé bari na lool ba xamuñu ñaata toll am na si sax ñoo xamante ne tegaguñ leen loxo ba ñu ngi leen di wër ginnaaw xibaar yi nga xamante ne am nañu bi dañoo ubbi woon ab bureau woo képp koo xamante ne am na acte de vente mu dikk nag ci bërëb bi bi ñu ñëwee nag lañ leen laaj ñañ ñoo leen jaay terrain yi si lañ dénoncé nag ñi nga xamante ni ñoom ñoo doon jaay terrain yi préfet bu diwaan bi nag di xamal ne kër yi nga xamante ne tabax nañ leen ba nit ñi dëkk ci kenn laalu leen waaye nag kër yi nga amuñu liggéey yooyee nag la ñu mbëppal jamono yi nag ñeenti nit ñi nga xamante ne ñoom la ñu teg loxo ñi ngi ci garde yi ñu fàttaliku ne waa Descos altine bii ñu génn lañ doon daanal kër yi nga xamante ne mi ngi féete ci forêt classée bi ci Mbourkat extension ñeneen ñu ñu teg loxo ña nga leen jàppee ca diwaanu Tambacounda ña ko def moo di gendarmerie es légion gendarmerie es bu Tamba ak Kédougou ñu toll ci ñetti doomi aadama yoo xamante ne ji cosaanu wuñ ci réew mi ay gan lañu fi jàpp nañu leen jàppale it lenn ci ëkki garab yoo xam ne daggoon nañ ko bëggoon koo rawale Moussa Omar Gueye ci leeral. depuis jafe-jafe yi amoon ci bofa Bayotte zone sud bi muy Ziguinchor ak li ko wër dañ fa tere lépp lu jëm ci wàllu exploitation ressource forestière muy garab yu ñuy dagg ak yeneen yoo xam ni daf ci jëm ba tax nag diwaanu Tambacounda tey ji rawatina zone bu bundu diggante jànke maxan ak li ko wër daanaka ñoo gën a am ay jafe-jafe ndaxte nag waa gendarmerie national sax jot nañ fa teg loxo lu ëpp ñetti téeméer ak juróom fukki tronc d'arbre yoo xam ne dañ leen dogate ba noppi. présentement ñi nga xamante ne jàpp nañ leen bi mi ngi continuer ah qui est chapeauté par l'adjoint-chef jallo donc euh, bu cloture bi bu ñu clôturé PV bi après ñoo ñooñu nga xamante ne jàpp nañ leen dinañ leen jox euh, tribunal bu nga xamante ni loolu mbàllum atte la pour ñu atte leen euh, par rapport ak tronc bi yi ngeen di gis nii yooyu dañ koy jël ñu jox ko le l'inspection régionale des eaux et de de Tambacounda. ak ñaari tronçonneuse ak benn velo ak benn moto. inspecteur <laughs> régional des eaux et forêts muy commandant Mamadou Gueye di rafetlu liggéey bi nga xam ne def nañ ko ba ci jamono ji jafe-jafe yi ñu daan am ci wàllum dogum garab ci màkk Koulibantang ak li ko wër daanaka foofu wàññeeku na. gendarmerie nationale moo ko def ak eaux et forêts dugg leen rek parce que màkk Koulibantang également defoon nañ ko fa di xeex gaa yi ba tax ñu jóge fa daw ñëw song si fii mais fii aussi di leen fi bàyyi noonu da lañ fexe comme ni ñu ko defee màkk Koulibantang ñu gën leen définitivement de la région Tambacounda. teb commandant Mademba Yacine Ndiaye chef d'escadron bu gendarmerie ngir askan wi jàpp ci daanaka nekk na loo xam ni Ibrahima Ba mi wax ci turu comité bi xeex lépp lu jëm ci wàllub daay yi daanaka ñoom ànd nañ ci nee ñu danañu gunge bu baax a baax force de défense et de sécurité yi ci lépp loo xam ne am nañ ko ci xibaar ngir aar lépp lu jëm ci alam bi. lépp nag daal di am ci diggante commune bu jànke Diankémahan bu Komoti bu Bani Israël ak bu fara Ida Mouride ga ca Koungheul fas nañu fa yéene tabax ab camp militaire démb la ñu teg doju njëkk doonoon ci teewaayu chef d'état-major général des armées mu di lool askanu Ida Mouride ak la ko wër rafet nañu ko bu baax a baax ndax gis nañu ne dana gën a yokk kaaraange gi waaye dana gën a tax ak yokkute maanaam ca boobi li diiwaan leeral yi Umar Ndiaye ci teewaayu gouverneur bu Kaffrine William Manel ak yenn kilifa yi ne ci gox boobu la ñu amalee xeer xoob bi la ñu amalee tegum xeer camp militaire bi njëkk ci diwaanu Kaffrine ci njiitalu général Birane Diop ñëw ci solos camp militaire bi lii tey jii ñu ñëw pour pose première pierre u camp bi nga xam ni moom la ñuy mu ñuy sanc fii ci Idda Mouride di sécuriser parti Sénégal bii nga xam ni moom la ñu bokk ak ku Gambie camp bi tamit dina mën a permettre liggéey bi gën yomb diggante unité yi nga xam ni ñoom ñoo nekk Tambacounda ak unité bi nga xam ni moom moo nekk fi mu ne nii Némandi bu boobaa sécurité Sénégal ak sécurité population yi dina gën a dëgër. su weesoo njëriñ li mu làmboo ci wàllu kaaraange camp militaire bi dina tax gox bi gën a soqali ko ci wàllu koom-koom. comme ni muy wax da ngay nelaw ba yandoor waaye di nga mën a aussi di investir sa xaalis di mën a jëriñu te kenn du la non kenn du la xoxatal ba lépp loo xam ne dépensé nga ko ci sa wàllu koom-koom muy tasaaroo bon boog économie je pense que loolu bu ñu ko doon xayma fii ba suba donc bu ñuy wax ci rentabilité sociale ci rentabilité économique tey jii yaakaar nañ ne camp militaire bi li ñuy andil romb na sunu njort. liggéey bi nag toll ci juróomi téeméeri million ci sunu koppar waaye ñu war ko xayma mu war a noppi ci diiru juróom benn weer bu ñu sukkandiku ci kilifa yi. ñeenti nit faatu nañu ci réew mi ci coronavirus bi bilan tey bi moo ko xamle xamle it lu toll ci ñetti téeméeri doomi aadama ak fukk ak juróom-ñett yeneen yu yees yu corona ñu déglu leerali docteur Ousmane Gueye mooy porte-parole ministère de la santé. ñaari junni ak yi ñu yu def ñetti téeméer ak fukk ñoo ci positif maanaam. juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaar cas contact mooy ñi laale woon ak ñi amee doomi jàngoro bi amul benn cas importé ñaar téeméer ak ñaar fukk ak benn cas issu de la transmission communautaire maanaam ñi amee doomi jàngoro bi te xamuñu fu ñu ko jëlee te ñooñu fukk ak juróom-ñett dañu nemmee ko ci Kaolack fukk ak juróom-benn te Saint-Louis fukk ak juróom ca Thiès juróom-ñeent ca Touba juróom-ñett ca Mbour juróom-ñaar ca Mbao juróom-benn ca Dakar Plateau ak Maris juróom ca Almadi Médina Mermoz ak Rufisque ñeent ca Diofior Guédiawaye Matam Popenguine Sokone Tamba ak zone B ñett ca benn tali Cambérène Linguère Mamel Parcelles Assainies Pikine Point E Pout ak Sindia ñaar ca Diourbel Fatick Guinguinéo HLM Kédougou Kër Ndiaye Lo Xombol Mékhé Nioro Sacré-Cœur 3 Scat Urbam Sébikotane Caajaay Yëmbal Yoff ak zone de captage fenn ci cité Aliou Sow cité Gadaye cité Kër Damel cité Mista cité SHS cité Tako Daaru Xan Fang Op Kunjun Kër Massar Kër Momar Kolda Liberté 3 Liberté 6 Ngafaru Ngor Louga Wakam Passy Pété Podor Port Rebeuss Sicap Baobab Sicap Karak Thilogne Vélingara Yarax ak Ziguinchor téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaar malaat ci ñi ñu hospitalisé woon wér nañu bésu tey juróom fukk ak juróom malade ñoo ngi réanimation ñeent malaat ñàkk nañu seen bakken bésu dëmb ajjuma ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru janvier atum 2021 ka coronavirus yi ak ni ñuy lawee ci réew mi pëlisub Sénégal am ci beneen taxawaay bu weesoo di jàpp nit ñi tegewul ci yoon ak di leen alamaan la mu fas yéene moo di ay information ak i sensibilisation ngir askan wi gën a yeewu ci wopp ji euh, li koy màndargaal mooy ay masque yoo xam ne ñu ngi koy jox leen ci askan wi ngir ñu man di masqué wu di leen ci xiirtal ci doxin woowee la ñu tegu ni ñu ko defee ca marché bu Sandaga defee nañu ko noonu ci buntu Thiaw euh, kon boori rond point télévision Malick Niang mooy commandant bu compagnie circulation police nationale ñu teewlu kàddoom ci micro Abdoulaye Diédhiou bu l'observateur ak euh, caméra bu Khadim Cissé. mission police dafa yaatu ñu bëri dañ yaakaar ni mission police jàpp la ak sanction déedéet mission police di jàpp ak sanction rek am na foo xam ni sanction bu muy mujj mooy comme lii ngeen gis tey parce que dañ ne mbas mi mu ngi fi donc ñun lii si ñu war. lii lii lii lii cëru police nationale ak wareefu police nationale mooy mu participer bu baax a baax a baax a baax si lutte contre la Covid 19. donc ci kaw loolu moo tax police nationale jël ay masque yoo xamante ni xool ñi nga xamante ne amuñu masque ñu jël masque jox leen ak di leen sensibiliser wax leen lan moo tax ñu war a takk masque. parce que mbas mi mu ngi fi te nit ki boo duggee ci oto dend nga ak nit donc ka nga dendal boo takkul masque yow mën nga ko lor donc dafa am solo. que boo duggee ci oto rek wala ngay dugg ci oto jëlal boo génnee sa kër rek jëlal masque nga takk ba tax ni képp ku kuñ ci gis ni takkul masque ñu waroon tey ñu waroon leen fayloo 3000 wala yooyu dañ ñu déedéet non ñun police nationale dafay def li nga xamante ni moom mooy participation ak sensibilisation mooy d'abord yëkkati masque may leen jox leen ba pare xamal leen li tax ñu war a takk masque bi gis ngeen si biir couvre bi xëy na guddi gi boo leen doon dox da di gis koo xamante ni dafay ñëw ëmb toll ci diggante gisul taxi gisul dara oto police moo koy jël yóbbu ko ay policiers ñoo koy jël. coronavirus bi di mbas mi ak loraange yi mu jur ci réew mi rawatina ci wàll koom gi tax na fii ci ndakaaru jigéen ñi nekk ci diwaanu Ngor doon góor góorlu corona bi yàq lu bari ci seenub liggéey la ñu mujj def mooy dem di ànd ak ñi nga xam ne dañuy pavé mbeddi dëkk bi ngir mën ca am lu ñu mën a suturloo liggéey boobee ñoo nga cee gis seen bopp am na ci sax ñooñ am na ñu yéene ci ne bu yëf yi jeexee mu di coronavirus bi dañuy des ca boobu la liggéey reportage ci woowu li wàll Abdoulaye Diop Thierno Laurent Mendy liggéeykat ñi ngi daan seen doole ci tàngaay bi ngir rafetal bërëb bile ñoo ngi ci rond Ngor village ci liggéeykat yi nag ay jigéen ràññeeku ci ñoom ni góor ñi di leen ko yóbbaale seen mbëbët yépp mooy ñu yóbbaale luñ mën a fajee seen soxla ñu ngi toog si kër te dañu yor njaboot yor jëkkër suñuy war a fay luyaas war a joxe dépense war a fay école war dimbali suñuy jëkkër daal moo tax ñu ñëw fii di liggéey mais xam nga ne lii du liggéeyu jigéen avant may lii dama doon euh, dama doon def euh, ménage laa doon def dañu bëgg a jàppale suñuy borom kër jàpp tamit si xale yi loolu moo tax ñu ñëw fii ñëw daan si doole rek. liggéey bile ci góor ñi lañ ko gën a miine waaye jigéen ñi ñoom nee nañ dañ ciy dem ba jeex. si metti na. benn liggéey métti rawatina nag liggéey bi ñuy def nii ndax liggéey bi yëkkati xeer la teg pavé dangay ngay dangay da ngay dressé waaw il faut mu xaw dëgg yàlla métti na trop trop trop trop bu dëgg yàlla métti na mais di gisuñu leneen moo tax ñu jàpp lii. tàggat biñ leen def ci liggéey bi le tax na ba ñoom ñu bëgg a def lii comme seen métier. bu projet bi jeexee. mën nañ ko léegi même bu beneen sanc amoon tamit muy dakaar muy Thiès muy feneen buñ ñu fayee loo xamante ne nii jar na ko ñun dañuy déplacé wu dem. mu liggéey ko. bu ñuy doo ko commencé fële si kaw miti woon na lool ñoom dañuy teg ñun dañuy teg di dóor marto di xoos di tuuri di def yëpp ñu ngi koy ñaan nag dañu waxoon ne fii bu paree dañuy jël ay jigéen ñu koy bale ñu ngi koy ñaan kon ñun jigéen ñi fi nekka boobu ba tey sonn na si bu paree ñu ngi koy ñaan meer bi ngir yàlla mu jël ñu si ñi la bale. maire bu Ngor nag nee na dina jàppale jigéen ñi le ci liggéeyu projet bi ci yeneen yu leen soxal. yeneen i jigéen yu ñuy taxaw ci jamonoy coronavirus bi moo di jigéen ya ca diwaanu Diouroup sabab li moo di eh, génn nag ONG goo xamante ne ji mu ngi tudd ONG Femmes Enfance Environnement ñoom ñoo leen di tàggat ngir ñu xam nu ñuy defaree saabu nu ñuy defaree eau de ba ci sax fëriñ li tax mooy ñu mën di mënal seen bopp mën a liggéeyal seen bopp mën nit di fajal seen soxla seen bopp ci jamono yi Covid 19 bile Aminata Goudiaby lu tolloog juróomi fan ONG Femmes Enfance Environnement nga xam ne ci Fatick la féete ñoom nag dajale woon nañu ay jigéen ñu bokkee ci ñetti groupement yu nekk ci commune bu Diouroup tàggat nañu leen ci domaine d'activité yu bëri ne ñu nag liñ ci bëgg mooy fexe ba jigéen ñooñee nga xam ne ci dëkkukaay yi lañu ñu dëkk mën a amal seen bopp alal ba mën a demal seen bopp. dañ leen di former ci eau de javel savon parce que raxasu bi ku ne xam na ne eau de javel ak saabu moo ko yor waaye dañ leen di former aussi ci farine enrichie farine enrichie boo ko déggee ay euh, ferñeent la am parce que dafa bëri ay lu ko luñ loo xam ne au plan local la lépp fii lañ koy bayee ñu génnee ko jox leen ko defar ko fabriqué ko ba def ko ci ay paquet di ko jaay te loolu dafay indi koom te mu doon loo xam ne aussi bu nu paree dañ leen di accompagner ci marketing bi pour ñu am label am fu ñu koy jaayee. crise coronavirus bi nag dafa tax ba situation jigéen ñu bëri fi mu ne gën a métti ONG Femmes Enfance Environnement nga xam ne nag dafa nekk ci ab partenariat moom ak centre d'études coopération internationale bëgg dugal seen loxo ci nu ñuy fexe ba jàppale jigéen ñooñu ba ñu ci jafe nekkee. dafa fekk ne dañu nekk ci biir euh, coronavirus mu doon lu métti ci jigéen ñi parce que activités yëpp dañu taxaw donc loolu dafay indi ñàkk di indi ndóol te ONG Fee ku ko xam ak ay partenaire am da xam ne moom dafay xeex ñàkk ak ndóol ci jigéen ñi donc corona bi bu mu ñëwee dañu wax ne nañu renforcer suñu jigéen ñi ci wàllu économie mais nañu sensibiliser aussi contre les violences te jigéen ñi ñoo ciy gën a pâtir ay campagne de sensibilisation sax ñu ne ñoom daañu ko amal ci gox yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci biir département bu Fatick ndaxte nee ñu crise bi nga xam ni coronavirus bi moom moo ko indi dafa laaj ñu gunge itam jigéen ñi di leen xelal ci wàllu yu bëri ndax seen xel gën a dal. bàyyeekoo Fatick wutali diwaanu Ndar foofee école bi di école Boli Diaw bu Ndar. ñu fa doon jàngee ba jóge fa ñoo euh, del ñoo fa dellu ngir taxaw seen doom ak jarbaat ya fa nekk di fa jànge jàppale leen ci matériel didactique waaye ay masque ak i jumtuwaay yu ñu mën a xeexee lii di mbas mi yamuñu ci ne it waxtaan nañu ak élèves yeek jàngalekat yi ngir daal ñu gën a taxaw ci xeex coronavirus bi respecter distanciation sociale bi nga xam ne santaane nañu ko ca masque yi ñu leen di bay ñuy fexe ba di ko renouveler euh, loole nag euh, kii di Amadou Moustapha Sow mi gi ñoom ancien élèves yu école Boli Diawo moo ci indi ay leeral euh, ci micro Ousseynou Diop Habib Seck. gën a saytu donc jàng bi euh, ak euh, gën a jàppale maîtres yi ci ñu mën a suivre xale yi pour que résultats scolaires yi gën a gën a mën baax. nag boole woon nañ ko ak matériel bi nga xam ni ay matériel de protection la mooy ay masque ak gel parce que jamono def ko laaj. te mënuñu indi matériel rek sans xalaat lool loolu moo ci moo moo jiitu ci kii parce que li ñu war jëkk la santé avant tout il toujours une euh, dafa am dichotomie boo xam ne dafa am entre la santé de l'éducation ban moo jëkk mais fi ñu toll nii santé bi dafa woon nii donc elle est première donc avant l'éducation mooy li ne enseignants yi di dugal mooy jàppale jàppale euh, mooy euh, di respecter li nga xam ne moom mooy distanciation sociale bi di respecter port donc régulier donc et renouvellement du masque ah di respecter aussi donc raxasu bi lu am Ismaïla Niang di inspecteur régional eaux et forêts ba ca diwaanu Sédhiou sàkku na ñu def foofe ay pax feu ci àll bi ndax mën a xeex lii di daay ya fay faral di am daay yoo xam ne la koy waral bokk na ci rëbbukat yi ak it ñi nga xam ne dañuy wut lem mu di lool ay loraange rek lay jur ci gàncax ga ca boobu la diwaan ñu teewlu ay kàddu moom Ismaïla Niang ci micro Bakary Konte ñoom ay nappkat lañ ñu ngi jóge ca ndar ci yaraax fii lañu sanc ëpp na ñetti at saa yu ñu xëyee di nooy xetug mbeex mi seen dik yëngute napp la waaye tey ji dafa gëllu goose ndax seen yeneeni moroomi nappkat yu faree fii ci dakaar ñoo leen ko teg napp ci géej gi bu ñuy napp day am ay gaal yu ndaw gaal yu ndaw yoo xam ni dañuy ñëw di heure bu nu soobee sunu mbaal yi ci géej gi ñu ñëw di taf mbaal yi di dagg mbaal yi di yàqal mu doon ay actes yoo xamante ni nappakat bu baax waru ko def. parce que nag lu ëpp tuuru te wax yàlla ñun lii ñu yore nii ay millions la te ay famille ñoo ko ñoo ko amee. gaalu Ngor Yoof Kayaar seen gaal na ñoo koy def te xam nga géej su ko ñëpp bokkee kenn ku ne war nga war nga sàmmonte fexe ba bul yàqal sa moroom ku nekk jël sa wërsëg si géej nga dem si yoon. xam ne li ni mel moonte de la ñuy jëfandikoo di caaxi cher na lool. nit ñi dudu seen wërsëg ñu leen di yàqal seen baal di dagg seen baal di nangu seen mbaal di nëbb ñun daaw jéeg rek nangu nañ fi sunu mbaal lu nga xam ne 4 millions la ba pare noonu leen si tëddee. yow valeur bu 3 millions ñu ñëw dagatee ak benn bi rek dem nii nii ci ay ay morom moo ñoo koy def. kër ak i ñoñom ne bëgguñu benn coow ci biir géej. waral na itam jàmm leen soxal. ndax tey ñi ñi koy def ku ci def bis rek nga daw ñu dàqale sa sa moteur fay mën na indi xeex boo xam ne état boobaa mu mën na bañ a xam fa la yem. waaye teewul ñuy ñaax autorité yi ñu wax ci te it des nañ porter plainte. ndax euh, état li ko tax a jóg mooy mu di prévenir mais boo prévenir. guérir état bi lañu bëgg parce que naa leen daanu porte plainte déposé au niveau procureur dégg nga boo ci yi ñu am ni comme jamono joo xamante ne mbas mi mi ngi lëmbee àdduna wërngal këpp koom yépp daanu ñoom nappkat yi nekk fii ci diwaanu yaraax jóge ba ca ndar la ñuy dund metti na la ko waral bokk na ci càcc gañuy càcc la ñu jot a napp ba noppi. defuk jéggalu tuuti loolee doonoon leeral yu bàyyeekoo ci Habib Faye ak Modou Diop jëmoon ci mool yi get ndax yi nga xam ne dañ doon yëglu ndax nee nañu seen liggéey dafa am ay mool yu bàyyeekoo Dakar yu koy saboté mooy lool buñ ci jëluti matuwaay mën naa jur fit na ñoo doon yëglu ni ma leen ko waxee sànq inspecteur régional eaux et forêts ba ci diwaanu Sédhiou di Ismaïla Niang li mu bëgg moo di ay pare yoo xam ne danañ ko def ca boobile diwaan ak ci àll ba ngir di moytu daay ya fay faral di am daay yi li koy jur ci ni ko waxee bokk na ci rëbbukat yi ak ñi nga xam ne dañuy wër lem loolee it euh, mu di lu bari lool dana ko yàq ci àll ba tax ñu bëgg ñu jël ci matuwaay ñu teewlu ay kàddoom moom Ismaïla Niang ci micro Bakary Konté. ñoo ëpp lu ñuy béy darkase te darkase ku ne xam na ne ay milliards yu bëri lay jur si senegal si ñiy jiitu si ñiy béy banaan si région de Sédhiou si la bokk si ñiy jiitu si ñuy béy ceebu nawet région de Sédhiou si la bokk boole si région de Sédhiou dafa bëri ay zone amodiées bërëb ya nga xam ne dañu fay rëbb si anam ya nga xam ne yoon nangu na ko te loolu ku ko wax muy daay te daay ñëpp si war a jóg moo tax ñu jóg ak suñu partenaires yi suñu agents yi communes yi di def ay pare maanaam bërëb ya nga xam ne dañu koy génne génne fa ñax yi xam ne daay bu ñëwoon dina taxaw lu mooy loolu ñuy def ay feu précoce fekk na ñax gi wawagul bu baax xam ne bu tàkkee tuuti rek ëllëg daay bu ñëwee du ko mënal dara waaw lu ñuy wax genn wàll kasara moo gën kasara moo tax ñuy def feu précoce yooyu moo tax duñu doole di leen ñaax ñiy dem di rëbb xale yiy rëbb xale bu si ne si dëkk la jóge ñoo ñu aussi chef de village yi ak askan wi gën a ñaax xale yi si rëbb boobu xam ne day andi ay daay uut mm-hmm. lem yi aussi naka noonu ñooñu ñëpp ñu ngi leen di ñaax di ñaax askan wi di ñaax chef de village fépp fu mu am ñu bàyyi si xel fexe daal ba chef de village bu ne bu ñuy wax dëkk yu safara jóge ñu bañ leen si tudd. foofee lañu yem ak yéen ci xibaaru digg bëccëg gi ci télévision Futur Média gërëm leen bu baax ci teewlu gi ñu yendoog jàmm.